Euh, sunu gan euh, Ciril Touré lay wuyoo ñu gën ko xam ci caat bu Y'en a itam mi ngi ñuy xaar ci ñaareelu pàcc bi rendez-vous 8h en compagnie des programmes de la télévision Futur Média waxtaan ak yow ak euh, coronavirus gi nga xam ne njàngat li mooy gone yi ñoo ëpp ci ñi mu dal te ñoo koy jox mag ñi nga xam ni sax ñoo ci euh, loru loola yéen ministère bi ñu dénk ministère bi ñu denk ndaw ñi nu ngeen ko jàngatee njëkk ba ñoo sori ci waxtaan wi. waaw jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu élage Hadj Ndiogou Diène euh, di nuyu également auditeur euh, rajo Futur Média yëpp di baalu àq sénégalais ci tabaski gi ñu génn euh, di wax rek ni li nga wax constat bi ñëpp ñoo ko defandoo ndaw ñi tey ñu ëpp ci ñi nga xamante ni ñooy ñiy contaminé wu ci corona bi ñu koy dugal itam ci kër yi. Euh, mu nekk la nga xamante ni nii booy xool ci poids démographique bi nga xamante ni ndaw ñi am nañ ko ci population bi euh, di nga ni jaadu na jaaduwul jaadu na dans la mesure où Sénégal 64 pour cent population bi ndaw ñi lañ donc lu bon luy dugg ci réew mi ndaw ñi ñoo ci ëppale bu dee lu baax la tamit ñoo ci ëppale euh, mais nag bii nag dafa fekk ni ndaw ñi dafa am rôle bu mag buñ ci war a jouer tey jii tey coronavirus bi mi ngi gagné du terrain au Sénégal et constat bi ñu def mooy ndaw ñi ñoo koy dugal ci kër yi. Euh, cela ne va ne pas dire que ni ndaw ñi engagé wu ñu ci combat bi dès le début de la pandémie jeunes yi jël nañu combat bi à bras corps di di sensibiliser di communiquer waaye tey dafa am beneen xeex ba nga xamante ni dafa war ndaw ñi loolu safaanoo nag li ñu seetlu ni gone yi corona bi mi ngi ci ñoom respecté wuñu matuwaay yi ba euh, jàngoro yi ne ci ñoom bu dul feeñ ci ñoom itam di leen lor ñi ngi koy wasaare ci askan wi waaw moom laa la wax dafa am ñaari fee engagé wu nañ ci combat bi te tamit bari gi ñu bari ci population bi tax na ba lu bon lu ci ëpp luy am ci dëkk bi ci ndaw ñi lay ëppee waaye terewul euh, d'une part am na ci ndaw ñu bari la majeure partie engagé wu nañ ci xeex bi di sensibiliser def li leen war Euh, d'une autre part tamit am na ñi nga xamante ni ñu ngi def naka sudul noonu naka sudul noonu nag bu amee cim réew lu mu tuuti tuuti day am euh, euh, lu muy jur bii nag dafay jur jéye ju métti métti mooy suñu wayjur yi nekk ci biir kër yi suñu papa yeeg suñu maam yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci biir kër yi ñoo ñu lay affecté te jàpp naa ni rôle ndaw ci réew du loolu rôle ndaw ci réew mooy jàppale population bi waaye jàppale mag yi te li may wax rek au-delà de l'aspect sanitaire ndaw dafa am devoir protégé ay waajuram en tout cas delloo ko njukkal ndax xale bu nekk ci kër bala muy màgg day naan maa ngi ñaan yàlla maa ngi jàppale samay waajur jàppale lii ku ci nekk rek sa ambition bu njëkk ci sa àdduna mooy jàppale say waajur sauver kon nag tey ndaw ñi euh, am nañu occasion bu rafet a rafet a rafet pour rendre hommage seeni parent wax leen exprimer leen seen gratitude euh, loolu nag ci wàllu ministère bi ñu moytu euh, feebar moytu tam wàllu mag ñi. waaw bari na euh, bu njëkk bi ñun dañoo dañoo jiitaloon ni ñun ñoo war a jiitu ci sensibilisation bi ñun en tant que tutelle ñun ñooy sensibiliser ñooy accompagner ndaw ñi te loolu yëpp def nañ ko accompagner nañ ndaw ñi appuyer association yi ànd ak conseil national de la mu mobiliser tamit ndaw ñi dans les départements bëri gi ñu bëri ci population bi tax na ba lu bon lu ci ëpp luy am ci dëkk bi ci ndaw ñi lay ëppee waaye terewul euh, d'une part am na ci ndaw ñu bëri la majeure partie engagé wu nañ ci xeex bi di sensibiliser def li leen war euh, d'une autre part tamit am na ñi nga xamante ni ñi ngi def naka sudul noonu naka sudul noonu nag bu amee jim réew lu mu tuuti tuuti day am euh, lu muy jur bii nag dafay jur jéye ju métte métti mooy suñu wayjur yi nekk ci biir kër yi suñu papa yeeg suñu maam yi nga xamante ni ñi ngi nekk ci biir kër yi ñoo ñu lay affecté te jàpp naa ni rôlu ndaw ci du loolu rôlu ndaw ci réew mooy jàppale population waaye jàppale mag yi te li may wax rek au-delà de l'aspect sanitaire ndaw dafa am devoir protéger ay waajuram en tout cas delloo ko njukkal ndax xale bu nekk ci kër bala muy màgg day naan maa ngi ñaan yàlla màgg jàppale samay waajur jàppale lii ku ci nekk rek sa ambition bu njëkk ci sa àdduna mooy jàppale say waajur sauver kon nag tey ndaw ñi Euh, am nañu occasion bu rafet a rafet a rafet pour rendre hommage seeni parent wax leen exprimer leen seen gratitude. Euh, loolu nag wàllu woowu ci wàllu ministère bi leen ngeen di def euh, ci wàllum ñaax ndaw ñi sensibiliser leen ngir ñu moytu feebar bi moytu tam wàllu mag ñi. waaw bari na bu njëkk bi ñun dañoo dañoo jiitaloon ni ñun ñoo war a jiitu ci sensibilisation bi ñun en tant que tutelle ñun ñooy sensibiliser ñooy accompagner ndaw ñi te loolu yëpp def nañ ko accompagner nañ ndaw ñi.

appuyer association yi ànd ak conseil national de la jeunesse mobiliser leen tam mobiliser tamit ndaw ñi dans les département tey euh, boo ñëwee Dakar suñu service yi ñu ngi mobiliser ànd ak euh, SNEPS bu ministère de la santé ñu defal jeunes yi formation ñuy sensibiliser. au niveau déconcentré également suñu service yi même chose nañu def dans tous les départements les jeunes se sont mobilisés organisés avec euh, nos services pour que ñu sensibiliser maintenant dafa am beneen passage boo nte ni nii beneen vitesse supérieure boo xamante ni ñun dañoo jàpp ne dañ cee war a dem mooy euh, jox ndaw ñi occasion ñu autosensibiliser wu tey jàpp nañ ni ndaw ñi ñoo war a wax ak ndaw ñi loolu moo tax nous allons donner la parole au jeunes pour que ñu sensibiliser seen bopp aujourd'hui il y des jeunes porteurs de voix des jeunes leaders yi nga xamante ni mën nañu porter combat boobu ñu wax ak ndaw ñi ñu accompagner leen bien sûr du te ñun la ñu daan def dañ koy def mais tey je pense que la jeunesse doit s'auto-sensibiliser euh, démarche boobu nañu adopté et que jàpp naa ni dina am effet bu baax a baax parce que depuis que ñu lancé ki boobu ndaw ñi ñu ngi ñëw que ça soit des jeunes activistes artistes chanteurs footballeurs ñoom ñëpp ñu ngi ñëw pour que ñu ànd ak ñoom sensibiliser ndaw ñi et defe naa ni dina am éco favorable mais euh, euh, li ñuy wax euh, civisme. Mm-hmm. yéen lañ ko dénk ministère de la jeunesse citoyenneté ci de façon générale. Mm-hmm. loolu fu mu toll am na banqaas bu ne ci ministère bi loolu ko tax a jóg lu tax ndaw ñi duñu dégg ndigal duñu topp. te tegtalu docteur yi ci lu mel ni xeex coronavirus bi takku masque yi gis nañu gone yu bëri dañ koy caaxaani tere nañu géej di nga gis ba léegi ñuy sàkki pexe ngir xool nu ñuy demee géej et cetera loola na ngeen koy xaymaa yéen ministère bi ci civisme gi ni mu loofee ci Sénégal fi nu toll. waa loolu Babacar dañ koy relativiser parce que euh, boo xoolee euh, au moment où certains ñi ngi ñi ngi ñi ngi bañ a nangu li nga xamante ne ni moom nañ fi teg comme mesure d'autres ñi ngi dem au la di non seulement accepter nañu euh, mesures yi ñu fi teg mais ñi ngi ñi ngi participer ci xeex bi. très activement tey ay jeunes ñi ngi créer ay machines yoo xamante ni dañ ciy raxasoo jeune ñi ngi créer ay gel yi nga xamante ni dañ ciy raxasoo ay jeunes ñi ngi réfléchir même ci après Covid euh, sur le plan économique kon euh, implication ndaw ñi ci xeexu corona bi bari euh, kii na implication bu am doole la maintenant li ma wax sànq rek poids démographique gu ndaw ñi dafa bari bari ba nga xamante ni ci population bu fa bu fekkee ne am na rek tuuti ci ndaw ñu taxaw def naka su dul noonu day affecté population bi waaye globalement mën nañu wax ni ndaw ñi ñi participer nañ bu baax a baax a baax a baax ci xeexu coronavirus bi loolu président de la république bi muy ñaax ndaw ñi jël na ko en compte xam na ko bu baax a baax a baax a baax parce que jógul ci di féliciter engagement jeunes yi ci ci ci terrain bi waaye nag am na ñu nga xamante ni ñi ngi def safaan ba ñooñu tam tant que euh, mi ngi def des sax benn nit ñu jóg ci di leen sensibiliser parce que loolu mooy suñu rôle citoyenneté ndaw ñi ak seen civisme defe naa ni tout temps yàgg nañ ko yàgg nañ ko manifesté te jóguñu ci di ko manifester euh, ci ci ci coronavirus bi. léegi ndaw yooyu doon sàmm ñàkk sàmmoon teg euh, sart yi di def nakk sudul noonu lan moo ciy pexe euh, tegi daan répression wala lan moo ci pexe. waaw ñaari yëf moo am. ñun suñu côté dañuy continuer di leen sensibiliser parce que li ma wax sànq même bu desee benn nit sax dañuy continuer di leen sensibiliser beneen yëf bi tamit am na mooy que ni yoon mi ngi fi. loolu ñun dañ leen koy gën a ñaaxaat di leen ci euh, di euh, di di appeler seen sens de responsabilité parce que il faut que ñu xam ni yoon du leen bàyyi ñu def naka sudul noonu ci réew mi bu fekkee ni ndaw ñi euh, am nañu chance su quelque part te te du sax totalement am nañ quelque part survivre ci feebar bi mag ñi amuñu chance boobu te nag wax dëgg yàlla fii ku fi xool ni ku saaga sa yaay ci mbedd mi nga gàddu yat dem xeex ak moom ku wax sa yaay nag su dul noonu wala sa papa nga gàddu yat den sa xeex ak moom feebar moo gën a bon saaga kon nag euh, sauver say say wayjur sauver mag ñi rôlu ndaw ñi la te duñu jóg ci di leen ñaax dañ leen di ñaax toujours te dinañu leen accompagner te defe naa ni cette fois-ci appel bi dina dina am éco favorable pour que ñoom aussi ñu ñu ñu ñu wàññi li nga xamante ne ni ñu bàyyi completement hmm. dérive yi nga xam ni moom nañu nekkee. nu ngeen koy defee euh, lan ngeen nas ci plan. te jàpp ni xëy na war naa mën a dugg ci nopp gone yi ban pexe la. waaw euh, mooy li ma wax sànq implication directe ndaw ñi avant ñun dañu daan dem vers ñoom di jël la parole di wax di kii am na am na effet positif loolu mais di ñu jàpp ni li gën a efficace mooy jox ndaw ñi parole bi impliquer leen directement ñoom ñu jël combat bi amee. donc loolu bu ñu ko defee defe naa ni impliqué leen wax leen ak seen seeni morom wax ak ñoom dinañu xam ni Euh, mbir mi dépassé na léegi du mbirum état du mbiru kenn euh, santé publique la sécurité publique la kon waruñu ci des ginnaaw avenir réew mi def ci dépendre te avenir réew mi comme li may wax euh, fan yi rek mun bu ñuy wax ndaw vecteur de développement nañ war a wax waaye waruñu wax vecteur de transmission du du coronavirus kon ndaw ñi il faut ñu am prise de conscience boobu te duñu ci jóg loolu moom day jóg day continuer di résonner ci seen ay nopp nu ngeen koy defee jaarale ko ci ay eh, yéenekaay wala eh, defi karawaan karawaan moom xalaatee su ko ci jamono yi wàllante coronavirus gi ban pexe fu ngeen koy jaaree. waaw surtout loolu parce que am na ay support tey nga xamante ni jeunes yi ñu ngi ci bari surtout lu mel ni lu demee ni que réseaux sociaux yi ndaw yi ñu nga fa. Euh, lu demee ni que médias yi tamit dinañ ci dinañ ci dinañ ci dinañ fi lancé wu bu baax a baax a baax pour sensibiliser ndaw ñi maintenant am na la nga xamante ni tamit c'est un couteau à double tranchant parce que ndaw bi nga xamante ni moo teew di def naka sudul noonu moom ak ki nga xamante ni mooy def visite à domicile wala mooy wàcc sur le terrain di sensibiliser ñoo yem euh, ñoo yem euh, droit ak devoir ci réew mi kon nit warul toog di seetaan euh, sa morom di exposer wu sur le terrain pour ñëw di la convaincre moo tax caravane ak yooyu dañ ko exclure du ñu def ay caravane parce que dañoo déjà dañu tere rassemblement yi maintenant dinañu def euh, descendre sur le terrain de manière intelligente mais li ci ëpp ci combat bi defe naa ni support médiatique yi ak euh, réseaux sociaux yeeg yooyu moo mooy ëpp ci xeex bi parce que euh, jaxasoo beeg askan bi duggalante beeg génn bi dañ koy wàññi parce que euh, li olof di wax sama boppam boppama la gënal du bañ naa la du ñu exposé ay ndaw euh, au même moment seeni yeneen i moroomi ndaw ñi ngi def naka sudul noonu dinañ leen sensibiliser mais de manière intelligente parce que nag ñoom ñëpp ñoo yem euh, égale dignité ci ci ci réew mi. Mhm. ci wàllum xeex feebar bi euh, sol masque nekk na ci loo xamante ne lu am am solo la. Mhm. ministre de l'intérieur sa dégg nañ ko àjjuma muy wax ne léegi moom par la force foog nit ñi sol masque yi mais ndaw ñooñu ngeen di sensibiliser est-ce que am nañ lu leen mën a may ñu jënd masque parce que tamit problème la fekkee ne jot ñu ci masque yi naka lañ koy sole euh, gis nga njóog bu ñu waxantee dëgg rek masque la majeure partie de la population am nañu ko. da ngay tasanteeg nit du takk masque nga ne ko yow an sa masque mun la mi ngi nii sama poche dafa ma doon étouffé kon euh, euh, xeexu coronavirus bi fi mu ne nii defe naa ni dépassé nañoo ne di wax nit ñi raxasu la def gel ak yooyu. ak solo masque nañ ñu jënd masque am ñoo xamante ne. masque euh, amuñu doole bu ñu mën a jëndalee chaque fois di jënd ay masque mais déjà déjà état li mu def ci masque bari na. à travers le ministère de l'industrie état génne na masque yu bare bare bare ministère de l'intérieur joxe na masque et dans les communes et département les autorités locales également déployé nañ des moyens pour jox population bi ay masques ministère de la femme un million de masques la joxe dans dans dans le pays jënd masque loolu tam li ñu ay masques distribué nañ ko xale yi am nañu ay masques yor nañu ay masques seeni poche nañ koy dugal koo waxal mu ne la daf may étouffé defe naa ne nag masque étouffé moo gën ñu ñu nga ñàkk say wajur wala nga ñàkk sa sa sa koo xamante ni daf la jege wala yow ci sa bopp même parce que bu ñu jàpp ni rek feebar bi personne age yi ñoom la sonnal ñoom lay lor ndaw loru na fi ñaar ba ba ñett ndaw loru nañ fi kon nag bu ñu jàpp rek ni euh, feebar bi mag ñi rek la mën a sonal kon ñun duñu protéger wu bu ñu dalee de façon mën nañ ci génn loolu c'est pas responsable moo tax euh, sans responsabilité ndaw ñi dañ koy convoqué waat di leen ci vraiment bu dal jël jaree ñu sukkal leen raamal leen sukkal leen raamal leen pour que ñu delloo si seen xel xam ni feebar bi Euh, mën na yàqal askan bi lu bare bare bari que ça soit sur le plan sanitaire wala sur le plan économique ndaw ñi ñoo war a développer seen réew ñoo war a jël xeex bi ci seen euh, bopp. léegi yéen seen ministère bi programme yi ñu tëral ngir jëmale ndaw ñi kanam. Mhm. ak coronavirus gi euh, programme yooyu nu muy demee di ngeen ko mën a wéyalam wala da ngeen naan jamono mayewu ko. waaw suñu programme liggéey moom dara du ci changé bu fekkee ni euh, bu bu weesoo programme bi nga xamante ni moom nañ doon wax vacances citoyennes nga xamante ni dafay laaj déplacement bu weesoo loolu suñu liggéey dara changé wu ci euh, plan de travail bi ñu amoon moom nañuy continuer pour développer euh, condition ndaw ñi ak li nga xamante ni ni mooy suñu ay mission vacances citoyennes nag ku nekk xam na ni vacance déjà amul Euh, caravane moom waxaale wuñ ko xalaatuñu koo def ci mim réew nag waaye nag bu tee dinañ def ay activités yoo nga xamante ni day euh, delloo day euh, jëmale ndaw ñi kanam day jëmale économie bi kanam jëmale li nga xamante ni mooy suñu agriculture par exemple kanam ak citoyenneté ndaw ñi tey à la place des vacances citoyennes ñun dañuy def ay activités hivernales yu nga xamante ni ni ndaw ñi dinañ ci gis seen bopp ci yenn gox-goxaat yi mais ay activités yi nga xamante ni comme niñ ko faraloon di def day renforcer te ndaw ñi mais également ñu miser ci sensibilisation. domaine agricole communautaire dakk yi nga xam ni euh, seen nguur gi tën a ticc. ma yeggali ko matal ko xam naa ni corona gi mbaa du ngeen ci. jaaree layee ci ba gën koo yéexale ginnaaw yéex na ba noppi tardé na ba noppi. waaw Babacar nag damaa defe ne da tukki woon kon nekkoo woon ci réew mi domaine agricole communautaire ci mim réew wax dëgg yàlla ah buñ koy wax ñun dañ ciy siggi ndax euh, mi ngi avancé bu baax a baax a baax a baax a baax. ku nekk ci dëkk bi xam na ni euh, dagg yi nga xamante ne ni président de la république lancé woon na ko ñi ngi ciy def jéego yu am solo solo. terminé nañu euh, waxtu yu ñu toll ci 2020 mhm. domaine agricole communautaire yëpp waroon naa yemb ba gone yi tàmbalee liggéey waxu waxuñu ay mi ngi euh, waxtu bi euh, ñu toll ci 2020 domaine agricole communautaire yëpp day pare bi wax at ñu toll ci 2020 domaine agricole communautaire yëpp day pare pare nañ bu kër Momar Sarr récemment ñu ngi commencé production démarré nañ euh, Sangalkam récemment ni boo de boo fa demee léegi engins yeeg yëpp a nga fa nit ñaa ngay liggéey kër Samba Kane également pare nañu presque defe naa ni balaa fin d'année bi ñu jee kon waxu dak moom dootuñ ko fi waxati fii ci 2020 dinañ pare dak yëpp kon euh, boo naan ma daj yi dañoo sooxe moo tax may laaj ba xam yaa ngi ci mim réew parce que Sénégal gi ñu nekk domaine agricole communautaire souffriru fi madame mi sant yaa ngi wax ne ci wàllum sensibilisation yi. Mm-hmm. conseil national de la jeunesse ngeen ci àndal mais am na ay ñu bokk ci kuréel googu di wax ne. Mm-hmm. kuréel googu euh, seen mandat ñu ko ko jiite ak ñoomu àndal seen mandat jeex na depuis décembre 2019. Mm-hmm. ñu waroon renouveler renouveler mu ba léegi tax si dolli ñu bokk ci bureau bi. Euh, dañoo passé at bi cinq ans. Euh, ci wàllu woowu noonu nar a def ci conseil national kañ ñuy renouveler. <laughs> waaw xam naa laaj boobu moom njóogu yóbbante la la bu ñu la yóbbante ne la ne la sërxal ko ministre bi mais ñun amuñu ci benn problème pour renouveler wala ñàkk renouveler wax dëgg yàlla euh, ñoom dañ leen a fekk ñu élire seen bureau di démocratiquement élire seen président. kon nag ñun du ñu def lu dul euh, ànd ak ñoom liggéey seen mandat bu jeexee ñu xool les conditions d'organisation d'une élection ñu defal leen ko normalement loolu amuñ ci benn problème on est en train de voir bien sûr on est en train de voir naka nañuy entamer ay concertation pour xool naka nañuy demee vers des renouvellements mais euh, ñu jàpp rek une chose ministère de la jeunesse pare na pour accompagner leen organiser leen ay renouvellement yu transparent yoo xamante ni du am benn problème waaye guddi yi ñu toll nii nii nii nii nii xam naa ni ñoom bu ñu leen waxoon dem leen campagne yi seen ay moromi jeune sax pour ngeen pour ngir renouveler dinañ xalaat ni ah xëy na ministre bi sax ñu jàmm moo tax nañu may tuuti période bi nga xamante ni nii moom nañu nekk ñu génn ko ñu jàppale leen ñu def renouvellement loolu amuñ ci benn problème saa ñu bu euh, moment bi favorable rek ñu entamé mais dès maintenant dinañ entamé ay discussions yoo nga xamante ne ni euh, dinañ teg les conditions d'une élection transparente au niveau du conseil. xam naa itam dugal ci seen loxo ngir bërëxal seen candidat mu jàll du noonu. lees faral di gis la. ci waaw xam nga nag nit bu toogee xalaat xalaatam boo xamante ne xalaat bu bu ñaaw la na ko assumer ñun moom wax dëgg yàlla li ma wax leer na élection yu transparente maintenant euh, ku ko mënti jël que fu mu bokk ci ñun que mu bokk ci ñeneen du génn Sénégal doomu Sénégal lañ ku bokk ci ñun senegal lay la la sénégalais la kuy bay waaram wala wala ndaw boo xamante ne ni euh, ay ay moromu ndaw ñam wóolu nañ ko. que ça soit mu bokk APR wala mu bokk feneen ñun le plus important mooy mu nekk ndawu Sénégal te loolu moo ñu tax a jóg des élections libres et transparentes au niveau du conseil national de la jeunesse. jërëjëf Néné Fatoumata Tall ministre euh, de la jeunesse jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène jaa ngeen jëf mbokk yi yéen donc jàmm mu ne.